mbokk amateur yi waa Axlu Lamb. xew-xew bu mag am na. ay bis bu neex. lutte sans frappe lay doon. juróomi million lañ fa teg. na ñëpp ñëw. rendez-vous le 12 janvier. le 12 janvier lan moo xew association des promoteurs ñoom looy delloo ndukkal euh, le ministre des sports Matar Ba. bu dee mas naa ba léegi maa ngi ci làmb te mosuma koo dégg kon loolu. loo xam ne la Sénégal yëpp ko war a teewe man Mbaye Gouy Gui maa ngi fa le 12 janvier. ci stadium Iba Mar Diop na ñëpp ñëw sargal ministre des sports Matar Ba. ci woo ñëpp le 12 janvier incha allah nag ànd si association des promoteurs waaw ñëpp ñu ngi ñëw nag bu suñu ministre bi ah. di kontaan tamit ci promoteurs yi. ñoom ñi nga xamante ñoo xool li nga xamante moom moo gën a rafet ñu tuddee ki nga xam mooy ministre Matar Ba. ñu ngi woo ñëpp di leen jox rendez-vous le 12 janvier ci drapeau Matar Ba suñu ministre bu baax boobu. ci woo ñëpp maa ngi le bis la boo xamante ni li ko ñëpp jug waajal ko préparé ko te xam ne dara du yomb maa ngi ci biir fas yéene gunge Matar Ba. dëgg neexul. ñëpp a ngi ci biir jox ñëpp rendez bu incha allah booy ñaar ak dëgg neexul ci roxo ci roxo jeexee rek jeexee rek. drapeau bi Matar ba lañ ko tuddee gars yi man dinaa ci teew ah. di ko accueillir ci bis bi te xam ni bu ñëwee bis ba bu soobee yàlla fa la may fekk ak menaces yëpp. ak président CNC parce que lii ku ko ku ko ku tëgg làmb. CNC nga ko defal. mise bi 5 millions de francs CFA la ñu ci delloo jukkal Matar Ba pour service rendu à la lutte. le 12 janvier ah kon gars yi bu ko kenn mooy clôture nag Iba Mar ci la ñuy tëj Iba Mar ku koy tëj association des promoteurs drapeau ministre Matar Ba lutte traditionnelle. man Lamine Samba maa nga fa le 12 te yéen it na ngeen ñëw le 12 association des promoteurs du yomb te dina neex. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 10 janvier 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi moo xam sunu làmb la La Tribune wala Leewtoo TV fu nekk rek ay xibaar xëy na fa bu dee yëglikaay bi di sunu làmb la moom dafa mel ni coowal Balla Gaye 2 ak Boy Niang jeexagul ndax nag ba ko Boy Niang dëkk jàppee di ko dëkk Balla Gaye de nangu naa bëreek moom dem ba ci yàgg mu ne dootul moom di moom maanaam bëreetul ak moom ka nga xam ne nag moom mooy Burxaan Waat moo xëy tey di wax ca ñàkk bëre googa Balla bañ lank kandaareen dootu ko bëre ak Boy Niang ndax wax yoo xam ne jàpp na ne warta am seen diggante te mu ngi am mu mel ni ki nag wax ja daa mel ni kon nañ ko déggee daal ci li Burxaan wax daa mel ni ka nga xam ne mooy papaay Boy moom la ñu jàpp ne moo wax wax joo xam ne nii daal xëy na waru koon koo wax moo tax nag kii di xaan moom ne na bur kii nga xam ne mooy dégool moom des na muy waxee du baax maanaam daal des fois communication moom day wàcc raay bi loolu waxi Bourkhane Wade la du sama ay wax moom nag mooy mënaat seeru booy Niang jàpp na ne daal dëggoon moom nekk na kenn koo xam ne nii day feree na ko daal lees war a def maanaam daal mu bañ di wax lu baree baree bare loolu mooy wax ki nga xam ne nii moom moo di ki nga xam ne moo di Bourkhane Wade li leer ba leer daal daa mel ni fi mu nekk nii moom discours boo xam ne def na ko jëmale ko ci Sa Thiès moo naqare ka nga xam ne moo di Balla Gaye moo tax daal dafa doyu waar ba nga xam ne nii daal moom jàpp na ne kii di déggool moom ah ay mbiram moom itam xaw naa critique parce que daal wax joo xam nar naa tax tey Balla Gaye taxan dootul bëri ak booy Niang moom jàpp na ne loolu mënoon naa ñàkk Burxaan Wàdd nag moo xëy tey di wax loolu ci yëglikaay bii nga xam ne moo di sunu làmb leneen loo xam ne mu ngi ci yëglikaay bi wala keneen koo xam ne moom problème ah yëglikaay bi ne na mbaa du ko am ci combat bi mu jëm muy Modou ndax bu dee Balla Gaye 2 la Ama Baldé lay jàppale Baboy ne na mu ngi ca ginnaaw ki nga xam ne nii moom moo di Ama Baldé Balla Gaye moom mu ngay yooxu ama yee ama yee di ko wax ca kaw ak kaw ak kaw di wane na daal mu ngi ca ginnaawam di ko jàppale Baboy moom ci vidéo ca Leewtoo TV fa la waxee noonu ne moom combat bi moom da ciy takk rip ci ginnaaw Ama Baldé lu mu mën ngir Ama am ndam dana ko def mu mel ni ki kon foofa itam day nar naa tàng jër jër jër wala mu doon boog cin luy baax roq mooy sedd moom jëre suk ñu ko fay xaar waaye leneen loo xam ne tamit gis nañ ko ci yëglikaay bi wala foo xam ne moo di la tribune la tribune moom la amoon dem ministère de sports te la ñëw mu mel ni ki motaar ba nag daal na promoteur ya nga xam ne Pa Abdou Fall mooy seen njiit ñuy waajal dimanche ji drapeau bañ ko tuddee mu mel ni ki miso daal yokk nañ ko yóbbu ko ci 6 million waaye li leer ba leer daal moom ministre ba moom nee na leen daal dina wax ak société yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi ñu jàppale li nga xam ne nii moo di promoteurs yi maanaam sponsorisé leen ngir nag ñu gën di mën di tëgg ay làmb loolu ka nga xam ne nii moo di Matar Ba moom moo ko wax démb ña nga xam ne nii moo di promoteurs yi nga xam ne ñoo demoon seeti ko maam lees moom mooy coach su parcelle mbooloo moom daal nee na li ñu nar te jàpp ko mooy li yoof def saison bii jeex ñoom ñu def ko maanaam saison bii ñu jëm moom ñoom ñi nga xam ne ñooy waa parcelle mbooloo la nga xam ne nii mooy premier ba ñu jël ko maanaam sunu làmb door ba loolu la ñuy waajal ñaar ñoo xam ne seen combat Assane Ndiaye tëgg na ko muy ngel jon ak ka nga xam ne mooy Grand Mbagnick di Calme Ndour Calme nag moom xëyul may ngel lu lu yomb ne ko daal li am ba des mooy jàppal ne moom maag yow bi nu mujjee daje maa mujj sa kaw daan la te jàpp na ne bu arbitre suuf lay tamit digganteem ak moom noonu rek lay waat da koy daan ba toog ci kawam loolu nag waxi ka nga xam ne nii moom moo di Calme Ndour la di Grand Mbagnick ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb waaye li leer ba leer moom yëglikaay ak lu ñu wax a wax jàppal yàgg maar tey la ajjuma ajjuma nag bés bu sell la maanaam bés la ci bés yi kon ñu ngi balu ñëpp ak di baal ñëpp ak di ñaan yàlla daal Sénégal giinu ne yàlla na fi yàlla def jàmm waaye def ko ci àddina bi yëpp ndax jàmm ci la ñëpp xaj te jàmm xaj ci ñëpp la dul jàmm jàmm ko gën yàgg maar fa muy jóge du fa jeex te fa mu jëm si it du fa doy kon yàlla nañ ko yàllay servir muy gën a bari fan yiy gudd wér gi yokk weccet wi di dugg ndax ci la bokk weccet ay tax xel dal moo ko waa Leewtoo TV nu nit nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndaloon si revue de l'arène bi nu àndaleet yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar si àjjuma ji maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall di nuyu ñu ñuy suivre ñëpp ci Leewtoo TV à travers le monde si àjjuma ji di leen ziar di leen baalu àq di ko di leen baal comme ni ma ko waxee sànq rek di ñaan yàlla def ci àddina bi jàmm mais yàlla na ci Sénégal ëppale Amine Babacar ñëw nag si sunu lamb dafa dalal ki nga xam ne mooy Bourkhane Bourkhane soo ko déggee mooy manager ki nga xam ne mooy Boy Niang moom nag dafa génn mel ni kii tontu ki nga xam ne mooy Balla Gaye ndax démb Balla moom na nee na euh, nee na nag pour le moment moom pour le moment kenn mënu ko kenn mënu ko freiner nee na nag dugal dafa war a changer discours bi mu jëmale tamit si ki nga xam ne mooy Sa Thiès ko jàppee comme doomam ndax nee na kàddu yu mu jël teg ko ci kaw Sa Thiès du kàddu yoo xam ni tegg ne la Babacar. waaw loolu li ñu ci mën a wax mooy Bourkhane mooy manager u Boy Niang ci petit combat ba tey déggul di way juru Boy Niang yaakaar naa kon ñoom ñaar ñoo ko seq lu am solo nag mooy kani euh, Balla xëy na ay wax moo tax mu ne moom dootul bëre ak Boy Niang déggul jàpp na ne wax jooju bu jo wala boog euh, burxaan jàpp na ne wax jooju ci déglu la jóge te jàpp na ne xëy na wax jooju warul warul demee noonu quoi waa nekkul wax ju teggi ne waaw loolu nag li ñu si mën a jàngat mooy que ni man tout le temps dama koy wax ndey kumba maanaam sport la ñuy def quoi lambu sport la yaa ngi dégg damay bëgg tout le temps rek ñun ñëpp ci yema ah, ñun yor micro yi di wax wala ñuy bind wala kay film wala kiy reporter wala kay bëree wala kay manager ñëpp yem maanaam communication bi dafay baax ñu di ko yemale ci cadre sport loolu moom defe naa ne mooy gën parce que mbir mi sport la parce que ma yow boo am man mii tey mënuma dëkk booy Niang wala ma dëkk Balla gay parce que defuma la ñuy def maanaam entraîné wu ma nekkuma ci logique bi nga xam ne mooy logique sport kon nag maanaam bu ñuy wax tout le temps rek dafay baax ñu ñëw ci logique sport bi maanaam mbër mi ak mbër mi ay sportif la ñu dëkkante nañu wala war nañoo bëre ñu wax ji buy jóg ñu teg ko ci cadre sport loolu dafay am solo waaye yaakaar naa ne muy burxaan ak muy duubalee ak muy dégoo euh, muy dégoo ak ñoom ñëpp. ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay parce que itam euh, man de nangoo naa ci kàddoog De Gaulle wala Boy Niang bi ñu fa mujjee ram mu wax loo xam ne nii ci kani Boy Niang bi mu amee problème ak yoon ci coow loolu mu amoon ak Zoss nee lees bokk na ci ñi ci doon dox di ci taxaw. yaa ngi dégg kon defe naa ne nañuy wër yu rafet yi di ko génne te yenn yi nga xam ne nii buñ ko waxee mu indi problème wala mu indi ay ñaaw-ñaaw ñu bañ di ko wax parce que ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Balla Gaye 2 Sa Thiès Boy Ama de Modou Lo ñoom ñëpp ay frère la ñoo bokk réew mi quoi nañu fexe lépp rafet su sport jotee nag ñu wax commune ñu indi communication sportive wax jëf-jëfi sportif teg ko ci cadre sport bu ñu jongante ku am ndam yóbbu ku ñàkk dem defaruwaat liggéeyuwaat continuer parce que làmb day jeex te gis nañ tey bi làmb ji jeexee gis nañ ci ay nit yoo xam ne nañu mel yow xam nga ne euh, manque de ancienne gloire yi ne ginnaaw am na fu ñu ci bëri ñoo am na ak ñoom bés yaa ngi dégg bëri Baboy ak Balla Gaye gis voilà Baboy Balla Gaye de loolu soriwul ëmma seen Gris Bordeaux yaa ngi dégg mën nañ fee lim di fi lim di fi lim te ñoom ñëpp fa la ñuy mujjee ji bu soobee suñu borom la ñuy ñaan mooy bëre ba dem retraite waaw te ñun loolu lañ leen di ñaanal kon na lépp rafet dëgg la Babacar nu ñëw nag si nga xam ne mooy Modou Lo suñu làmb dafa ne Modou Lo mi ngi ak ay équation yu metti su fekkee nar na jàmmat euh, jàkkaarloo ki nga xam ne mooy euh, Ama Baldé ndax nee na ñaari mbër yu mag ñaari kàngam noo nekk si ginnaawam di jàppale Ama Baldé ki si mel ni Balla Gaye ak ki nga xam ne moom mooy Baboy ndax Baboy génn wax na si Leewtoo TV nee na combat Ama Baldé ba Modou Lo dina takk ripp si combat bi si côté Ama Baldé Babacar waaw loolu day ah mbër mi am combat am ñoo xam ne dañ koy ne ci ginnaam di ko soutenir Ama Baldé tey bu ko Balla Gaye soutenir kenn du laaj lu tax parce que nag yaakaar naa ne loolu ci seeni kilifa la ba tey mu continuer ci ñoom kon defe naa Balla bu soutenir Ama rek waru garam la def Baboy kazalika naka noonu ndax kere ci Leewtoo TV leeral na ba ma ko laajee wax na diggante mag waa kër Fallaye Balde ak fa ñu jaar ba ci ñoom Zil Balde ba Ama ñëw nekk seen rak kon yaakaar naa ñooñu loola ñuy def jaadu na loolu nag mooy làmb waaye loolu itam euh, làmb comme lu olof yi wax rek wàllu teen la ñoo ñëpp mën nañ ñëpp ci ginnaaw la ñuy ne ca ginnaaw saaku ya bu arbitre bay soufflé moo doog ama dong ngay jàkkaarloo su keroogee moom ah waaw pëy day dal di wéy mbuus wala ten golof doon wax day dal di ñëw te yaakaar naa itam làmb noonu lay doxee Modou nag nekk na mbër moo xam ne nii par rapport ak ko gisee moom yaakaar naa nekk neexul mbër mu neex nekk mbër mu naqaree déstabilisé loolu moom ku ne gis na ko ci moom ama itam nekk na xale boo xam ne xale bu gëm boppam la kon ñi leen di jàppale moom nañ leen jàppale gunge leen soññu leen waaye nday kumba bis baat bu ñu suuflee diggante moo doog ama da nga gis lu doy doy waar pied droite ak pied gauche wallaay danga gis lu doy waar man maa la ko wax. non bu ñu xeexee nga gis lu garaaw a garaaw man maa la wax lii Modou ak Ama. parce que dama lay wax leen na Ama Balde sañ-sañ bi muy bëree da ko may lu bëri ci làmb audace bi mu am xam nga audace dafa baax ci àddina yaa ngi dégg maanaam nit ki da ngay gëm maanaam gën du gëm boppam yàlla la ñuy gëm mais nit day wóolu boppam am yàqin ci li muy def. man ci nekk ragal Ama Baldé façon boobu la ci làmb moom bu ñëwee li mu bëgg a def la lay def sur la coup Modou Lo nag dafa nekk jëmm joo xam ne si làmb moom maanaam boppam bi li ci ne dafa doy waar te bu ngeen nee ci géew naa ndey kumba da ngay xam ne nekk nga ak adversaire ci géew de moo tax ne naa la combat boobu boromub sañ-sañ la ak koo xam ne nii comme ni ma la ko mën a waxee mbuusu xale bu ñu sol yàpp mag la muy lu doy waar kon boo combat bu yéeme Babacar journal aussi mi ngi ni xamal ki nga xam ne mooy Mame Less mi coach euh, écurie Parcelles Mbooloo moom nee na seen objectif ren daal mooy jël ki nga li nga xam ne mooy euh, ngemb sunu lamb door bi waaw loolu day defe naa ñëpp moom lañ bëgg waaye moom comme loolu la wax it koy maye de am na loolu moom wax du ko maye wala tëdd di nelaw wala mbër yu manqué entraînement di daw ak jaare affaire di ut ay ay raccourci waaye yu ko dem am lees loolu li koy maye mooy mbër yu ànd bokk ndey bokk baay bokk benn xol ku ne yéene sa bopp li nga yéene sa morom yaa ngi dégg ngeen di entraîner su ngeen ko defee rek bu ngeen liggéeyee la ca des nag suñu borom moo koy valider waaw. Babacar nag suñu jógee suñu laam dañuy dem fi nga xam ne mooy Leewtoo TV ak Leewtoo point net dem ni ngi woon si ministère des sports noonu promoteur association des promoteurs bi nga xam ne Pape Abdou Fall moo ko jiite moo doon remettre drapeau Matar baa foofu si si euh, si si ministère des ba moom nag mise ba 5 millions waaye Matar Ba neen yóbbu na ko 6 millions jox na la aussi ay conseil ne leen wuti leen ay sponsor ma téye seen loxo yóbbu leen bi si sponsor yooyu noonu pour nu mun la jàppale pour nu mun jàppale tamit si làmb ji ndax nee na sport si boppam moo soxla sponsor Babacar waaw Matar Ba de man lu may wax si moom parce que nit ku nekk olof a ko wax ko gis nen ne ne nangee ministre de république ma xam a yàgg waaye yàlla na fi ñëpp yàgg gisuma ku disponible ni moom vraiment parce que fépp fu sport bi nekk ñu ngi koy jiñ ne ko fii la far fële la far mais d'accord loolu moo lay wan ne kon moom jege na ñëpp. yaa ngi dégg kon promoteur yi lañ def rafet na ci njiital Pape Abdou Fall tuddee ko drapeau yóbbul ko drapeau bi mu recevoir leen dalal leen mise ba nekkoon 5 mu yokk ko 6. 3 la woon sax. mu leen def leen ko 5 dégg mu ñu leen def yokkaat leen si benn. muy 6 kon loolu macha allah kon bëri simple yi dimanche am nañu bés. yaa ngi dégg la ca nag gën a tee mooy loola mu leen wax ci côté sponsoring bi yaakaar naa état la te état bëgg na loolu yokkuteem am ci kon yow mii ñëw da ngay am loo koy indil ba mu mën a ànd ak yow kon daal dañuy ñaan yàlla daal loolu mu wax moom Matar Ba yàlla na réussir jàpp leen ci doxo bool leen sponsor yi ñu mën a liggéey pour lamb ji jëm kanam Babacar leneen taw loo xam ne wax na ko ci Leewtoo point net tamit euh, promoteur yi euh, nee nañu euh, ci dimanche ci combat bi dañuy def seen jubilé maanaam daal dootu fas nañu tëgg seen lamb yëpp fee ci arène waaw loolu day lu ba lool day war na mën a nekk waaw loo ci mën a dégg daal arène nationale comme lamba tax ñu tabax ko moom ah di fa tëgg tamit day gën ne xel da koy da daal di nangu yaa ngi dégg ndax nag <laughs> kenn du yor sa yëf di xëccoo yëfi jàmbur loolu moom euh, day xaw a waar waaw mais daal yal na yàlla def daal dimas ak jàmm ñu fekk lépp te tal ko drapeau bi réussir te xam naa dina réussir ndax fu mu moo ngoom nar wàcc ak mbay ak loom ñu teg fa 6 millions ah tuq su bën lay doon saañ ba réer Babacar nag si kàddu yoon leen di tàggoot di leen jox dig daje leen di incha allah mais balaa boobu muy nuyu sama yaay mère so sama doom Mouhamed Diouf di nuyu astandine déjà Brahma chéri Khadija Diallo depuis Italie di nuyu ki nga xam ne mooy Mbaye Seye depuis la France di nuyu euh, ki nga xam ne mooy Asek aussi depuis Italie maa ngi koy ki nga xam ne mooy Abdou Gueye euh, Baye Fallou Diamagan papa Sita aussi maa ngi koy les États-Unis di ko jox wàccuwaayam naan ko jërëjëf di ki nga xam ne mooy samay doom Mame Diarra Penda Fallou aussi maa ngi koy nuyu ak Moussa ak Rokhaya Babacar. ah ndey Kumba yi sa nuyoo ba moom yaatu na de ah. Babacar te ngaa nuyoo nu tëj. ah Asi Diagne Asi maa lay nuyu. maa ngi nuyu aussi Asi Diagne. Mauritanie sama mbokk naar boobu ma lu ma si jaaxal sant bi rek ma si moom si xaw a jaaxal. waaw Diagne ak Fall de yéen a bokki dab de maa ngi koy nuyu Asi bu KMB soppe Modou Lo la maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom sama naar sama séeri la asi maa lay béggee di nuyu Rimka Couture waaw moom xam nga su jox nañ Sadio Mané ballon d'or waaye moom Ciseau a laa ko jox kuy ñaw ci réew mi rek Rimka ay sa chef daa aay macha allah bu borom Touba Sandaga taalibi sëñ Abdou Karim séeri nday Rimka maa ngi lay béggee bu baax a baax di nuyu tamit Ndiogu Tall di militaire maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu forces armées Sénégal bi yépp maa ngi dégg di ko toog teg seen loxo kilifa. tey fi képp kuy takk der rek maa ngi lay nuyu commandant Fall maa ngi koy nuyu mu nga ca. fële ca nu ñu koy ca Kaolack maa ngi koy nuyu bu baax a baax moo commandant mais respect di nuyu képp koo xam ne takk der nga maanaam daal di leen ñaanal jàmm parce que itam lu tax mooy ñoom ñoo ñun dañuy tëdd nelaw bay àndoor ñoom ñu ne ci frontière yeeg mbedd yeeg tali yi ngir leen ngir sécuriser nit ñi kon dañu war di nuyu dañ leen war di ziar di leen ñaanal jàmm parce que tamit ah olof da koy wax de feccum liir su neexee nday jaa jàpp ca mbag ya kon képp ku ñu sifar nuyu nañ la tuuti yaay saar moom itam ne ne boo ko ñemee ñee nga ñëw ngeen seq borom kër wujjee bu dee ñeme nga ko. man maa wujjeewul nag. ah dégg nga de mu ngi nii dama ko bëgg a tuuti yaay saar ne boo bëggee Assane Sarr jëkkëram nga ñëw nekk ñaareel ngeen seq ko yéen ñaar ngeen xool. maa ngi koy nuyu di nuyu ki nga xam ne nii moom mooy Kempes doomu ndoy yàgg mar ak bës ca siin doomu ndoy yàgg di nuyu waa Liberté 4 yëpp yaa ngi dégg mais du mën a ñàkk Youssou Ndoye sama international maa ngi koy nuyu Aliou bu Yankaaw Moussa Diouf Petersen Mansour Fall ah du Fall la san Mansour borom Baobab Maane Siri ba nuyu naa ñëpp borom wari ba ca Italie nu mu tuddati jox ma tur wa Aline Ndiaye ah Aline na affaire bi ñëw wala la ndey kumba waxee dëgg de blouson yi baax na dàll yi baax na waaye xaalis daa gën a wóor lépp Aline dara newu ci yàqul dara xaalis. ma leen di incha